alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. wa ala alihi حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله عن قطب المكتوم وبرزق المختوم مولانا شيخ احمد التجاني رضي الله عنه وعن وارث سرهما وخليفتهما إمام الصديقين والعارفين والأكتاب المتمكنين شيخ الإسلام مولانا شيخ إبراهيم mbokk yi gannaaw buñ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jokk ci sëriñ Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu di jokk ci seen xalifa ki nga xam ne mooy élimaanu siddiqi nii ak aarifi nii ak aktaabi di Cheikhul Islam Mawlana Cheikh Ibrahim ñuy nuyu mbooleem kilifa fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi alxalifa Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass yal yàlla yokk wéram delloo ko ci jàmm guddal fanam di nuyu imam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp di nuyu Cheikh Abdoulaye Chérif Haydara di koy ndokkeel ci bés bu tedd bi ci jotaay bu tedd bi di koy ndokkeel bu baax a baax a baax di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ cëralee bés bi ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp di sant yàlla nag ci jotaay bi jotaay bi mel nii mooy li nga xam ne mooy jotaayu pay bi mooy li nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima tàllal waaye nañu fexe li may laaxe danaa ma laaxe ko suma bopp maaye ko mbooleem sumay mbokk taalibe suñu àndandoor ci yàlla mooy ñu laxasaayoo takkaayoo nekk taalibe ndax dara mante jëriñ ci xadara Cheikh Ibrahima lu dul nekk taalibe ndax sa jaat ak sëriñ benn la bàyyi toog na ci te su fekkee ne nag xam nga xaqiqatu Cheikh Ibrahima nga xam ne jugewu fi kon nag balaa ngaa uti ba faayil day fekk faayil juge fi comme faayil lañu fi teew dañu fexe nekk taalibe mooy tax mu jëriñ taalibe nag bii jëriñu mooy nga fexe nekk taalibe banaana ba nga nekk taalibu mboq taalibe banaana li may ñaan mbokk muqaddam yi suñuy wulli nañ wulli taalibe yi daf leen wulleeg taalibe banaana ndax banaana amul coow soo koy wulli di dindi der bi amul coow te gannaaw bi nga dindee der bi bam set wecc benn yoon moo koy futti te su boobaa nooy na nooy boo xam ne liir bi mën na ci jëriñoo di muuj di yëg neex màggat mi mi amul bëñ mën na ci jëriñoo di muuj di yëg neex boo xam maa ne bi am bañ tamit mën na koo yéegi dégg nga maam lekk ko di am ba su boobaa taaliba boobu dafay nekk maanaam suñ na charia nga nooy fa nekk suñ na tarixa nga nooy fa nekk suñ na xaqiqa nga nooy fa nepp loolu mooy ta taalibe banaan amma taalibe mboq dafay jaay na moo bari yëre da nga ko xoppi ba mu jeex xotti des na kawaree nga dindi ko des na nga jël ko teg ko ci kaw safara si mu naan tat tat tat di su paree kenn rek ko yeeñ mooy waxambaane bi am bëñ liir ba du ci jëriñu dégg nga ma màggal ma du ci jëriñu kon na yàlla ñu yàlla musal ci taalibe boobu te léegi nag dafa mel ni ci ñii wulli wulleetun wulli wi bàyyi daan wulli kon nag nañ fexe wulli taalibe yi banaana ba nga xam ne dañuy yem ci lenn mooy gis lenn mooy xam lenn mooy mos lenn loolu rek mooy jëriñ ci xadar Cheikh Ibrahima kon nag lu dul loolu rek lu jëriñ day yàq kon nag maa ngi gannaaw bi nga xamee ne di koy diggal suma bopp ngam sumay mbokki taalibe loolu laa amul lu ma yokk tuuti rek ñu ngi ndokkeel sëriñ bu baax a baax di koy ñaanal yàlla yàlla gudde fanam may ko wéral ndax wax dëgg yàlla mu jaahit la mu ngi liggéeyal tariqa bi mu ngi liggéeyal tëdd bi mu ngi liggéeyal fayda ñu lay gërëm di la sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi